émission incha allah. Eh, mais ci leen loolu. Bakar dama dama message léegi muy waa diaspora parce que bu nee en direct la ci télé yi nekk Sénégal waa diaspora tamit dañuy laaj seen wàll. waa diaspora seen affiche point com ci lañ koy seeta bu soobee yàlla suñu borom ñoom la ñu ñoom ñooy instant bi nii moyens yi ñu amoon dañ ko double instant bi nii dañuy jël xaalis bu bëri gën a yokk seen kàttan gën a yokk seen produit gën a yokk seen euh, ay machine instant bi su ngeen koy seetaan ay dagg yi ngeen daan gis wala ay muy rate wala affaire yooyu loolu amatul ku jënd sa code di nga seetaan incha allah ci jàmm te benn problème doo la ci fekk xaali mbeng sama frère comme pas énuméré ko tey le 10 septembre dama koy souhaiter joyeux anniversaire joyeux anniversaire xaali jërëjëf ay ca jërëjëf monsieur Thiam jërëjëfati Makan Mbengue ngeen tàttu leen bu baax a baax poignée de main rek ñoom ñaar ay ca bu fekkee euh, léegi nag euh, Cheikh Cheikh dañuy nuyu aussi bu baax les promoteurs Jey Sène Jey Sène mi ngi ni toog mm-hmm. Gibson production Gibson production di nuyu suñu xarit Bada Jon Bawol production di nuyu Pala Diop ménager ak promoteurs yi fi nekk ñoom promoteurs yi nii voilà mi ngi doon ñi fi teew ñëpp Gaston production lañ bokk am nañu seen structure de waaye fu ma jógee ñoom ñu jóg su ma soxlaa petit cola sax ñu daw dem jënd ko ñëw jox ndeysaan <laughs> waa buur dégg na dégg dégg naa dégg naa jéy nag ni ma bu fere li ma la lu leer la Jibson mii ma tuddee làmb le 23 ah, maa ngi ko ciy remercier am na combat bu mag le octobre bi yàlla ci dox na amateur yëpp ñëw seetaan loolu jërëjëf Abdoulaye Ndiaye eh. ak Aliou Ngaye ñoom tam dama leen di nuyu bu baax baax baax ndax ñoom tam dañ may topp ci lépp donc vraiment félicitations à vous euh, Bada John moom mhm. dama koy bàyyi yàlla rek mais gëj na ma woo ma kaay jël xaalis <laughs> <laughs> merci mais jërëjëf mais am na di suñu ñaari doom ah. Babacar ak Lamine ñoom it ñu ay xale yoo xam ak Fadam yoo xam ne yéen it yéen a ngi bay seen waar ci lamb ci luy rafetal lamb ci ay kàddu ci ay jëfin ci ay waxin. vraiment ñii ngi leen ci félicité baax ay xale yu baax ngeen yéen ñëpp ah seulement dama leen tudd yéen ñett rek mais yéen ñëpp rek ñi ngi leen di jox seen wàccuwaay. te bu baax liiru jaan sama rak moom it maa koy nuyu bu baax muy xale bu baax. ah noonu laay nuyoo tamit ñoom ñi nga xam ne ñoo accompagné. mbir yëpp li liiru sama mbokk la ñoo bokk mais El Hadj Sall. Sénégal ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi.